askanu Yoff APEXI ak Ouest Foire nekkoon ci ay jafe-jafe fan yi yépp li waral nak du ludul lu dul as ndaw su tàggoo ak xelam am ñuy wax ni doomi gambi la dëkkal si leen boole ci mayul kenn jàmm mu mel ni nag jigéen lay bañ gis ndax du benn du ñaar yu mu tongal ay jigéen ci Ouest ak Yoff waral Alpha John nekk notable ci Yoff APEXI doxoon ci sax ay jéego ba ñu jëlsi ko yóbbu hôpital

ñu ne nañ jox bii pompier aéroport bii nañ ko jox gendarmerie euh, kii aéroport bii nañ ko yóbbu euh, ki euh, waa pompier pour papier bi ñu yóbbu si hôpitalu Mbao bi yooyu yëpp biñ ko defee ni ñu ko war a def aussi ñu ànd ak gendarmerie ak waa kii kii pompier ñu dëkk ñëw def tentative fii mais ñu fekk mu disparaître ñu ñëwaat fii deux fois troisième fois bi lañ koy soog a jàpp ñu yóbbu ko kii hôpitalu Mbao bi donc bi ñu koy hôpital mbaw bi aussi pour ñun defoon nañ dina yàgg foofu. waaye ginnaaw gi ndaw si dellu si boole ci nag gën am xadar yenn saay sax mu yor ngànnaay di xoqatalaate bu ko soobee sax mu jël ay pollu mbalit dugal ci fii fu courant di jaar comme ni ngeen ko gisee fii ci Selebe Yoon bi nekk ci mbeddu nag yi bañ musiba am Dakaractu woo association ànd taxaw ñi wéré di te yàlla tax te Papa ko ngir ñu jël si ndaw si le Dakar euh, Actu euh, dañoo gis benn malade mental boo xamante ne mi ngi fitnaal waa koñ bi te bi ñu laajtee ci koñ bi xamal nañ ñu ni waa koñ bi yëpp nee nañ woo nañ sapeur woote nañ fu nekk ndimbal mais amuñu fu ñu ndimbal léegi nag association bi jóg comme dafay fitnaal nit ñi tam malaat mental la ñun li suñu mbébét mooy dimbali malade mental yi waaye bëgguñu tamit ñuy lor société bi ndax tamit am na benn bët bu ñu leen di xool ngir di leen bëgg di dimbali waaye fekkente ni malade mental da agresif agressif nit ñi duñ ko ñemee dimbali looloo tax ñu ñëw fii ànd ak membre yu am solo yi wër nañ ko Dakar Actu ba sonn gisuñu ko après fa lañ jugee nag di ko wër di wër benn femme ni tamit démb la ma dek téléphone dëkk dëkk fii ci bor Ecobank bi ni ma am na benn malade mental bu jigéen bu fi nekk dañoo bëgg ngeen dimbali ñu ci. bi ñu dikkee ci samedi yemoo 15 août ñu ngi ko fekk yoof mu toog ñaari soxna yu bokk ci kuréel gi wax ak mu góor ñi daal di jël lenge yi dugal ci oto war ko yóbbuwaat hôpital caaro yi ci fi ñuy toppatoo ñi seen xel mëtul. bi nga xamante ni ñëw nañ gis malade bi xam nañ ni kii du ko ñuy sang rek bàyyi ko mu dem parce que su suñ suñ ko sangee bàyyi ko mu dem mën na ko jural yeneen problème yoo xamante ni doo xam fu muy nekk léegi nag looloo tax association bi euh, ñu jël ko en charge fas yéene ko yóbbu hôpital psychiatrique bu caaro yi jéem ko hospitaliser foofu même bu dee un mois la maîtriser ko ba mu dellu siwaat su ko defee ñu fexe ko delloo ay mbokkam. hospitalisation bi nag dafa am lu muy laaj ci wàllum taxawu. ñu koy hospitaliser képp ku ñu ci mën a jàppale ci hospitalisation bi parce que cent dix mille la plus lekk yi ñu fa war a lekk ñoom plus ordonnance yi plus accompagnant bi am na lu ko fa war waaye lépp teg nañ ko ci loxo yàlla te yàlla rek la ku bëgg jàppale association bi ci mission bi muy dox mën nga leen woo ci numéro yi Pape Niang di Nous avons un numéro 77 190 77 67 voilà 77 873 16 85 voilà 77 158 32 45